moom la tànn moom yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali suñu borom moom la tànn def mu nekk ci gën ci moom bu mës a bind ci gën ci lu mu mës bind eh, sax kenn wala lenn lu nekk lu mu bind lu nekk leeram gaa cay jolli moom sax bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali waaye kon danañ jàngat côté boobu ay dinañ bokk yéen itam bu dëppoo dogal ak borom bi jàngat yàqkat yi di ñu bëgg a teg ci deram waaye teg ko itam ci deru ñi nga xam ni ñoo ko meññ wala ñi nga xam ni ñoo ko uuf ñoo ko aar loolu yëpp bu dëppoog dogale borom bi dinañ am ay njukki suñ ci njukki ndax moom géej la kenn mën a koo jeex koo xam ne yaay alquranu naatiq te alquran laa yaatihi min bayni yadayhi wala min xalfihi alquran léppam rek ay njàngat la ay njàngale la ay jëriñ la tax loo ca xam ak du rëy rëy bët jàppal ne mu ngi mel ni ku tànk jël sa pot tànk ko ci géej noonu itam la sant bi muhammadin sallallahu alayhi wa mel ndax leeram googu nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala njëkk bind leer gi nga xam ne bare na ñu koy tuddee alxaqiqatul muhammadiya xaqiqatul wujud noorul wujud bare na ay ñu koy tuddee waaye li wér mooy yonent bi muhammadin sallallahu alayhi leeram bi yàlla naree bind dara te lu mu bind fam la jaarloo nga jaar fa ñépp war a xool pour jaar fa leen yàlla wax nga xam ne mooy seen busol mooy seen faar mooy seen niitukaay lépp lu yàlla bind asamaan yëg suuf yëg lépp kooku mooy leer boobu nga mooy yi muhammadin sallallahu alayhi wa a toll léegi leer boobu muhammadin sallallahu alayhi wa ali wax ko ba wax xadiis bare nañu wala boog siira yi ñu ñëwee bare na waaye dama ciy tànn benn rek boo xam ne yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa dañu koy wax pour une bonne fois pour toute nag ñu jéem fexe nag ba bu ñu xamee loolu ku ñu waxati lu wóor ak lu wuteeg loolu ñu ne la umu te xam ne lañ la wax bokkul ak li nga xam ne mooy sax rasul sallallahu alayhi wa ali ay nañu wax ni um moom kenn du ci yóbbu nit kaso nit da wax loo xam ne wër na ne dëppoowul ak alq yonent bi Muhammad bi alquran wax nga ne um rek te génn ci waaye moom sangit Muhammadin sallallahu alayhi wa ali day wax naan kuntu ana wa aliyun nuuraani bayna yaday laahi taala qabla an yaxluqa aadama am na ci riwaaya boo xam ne dafa wax ne ana xabla an yaxluqal xalqa man ak Ali ibn Abi Talib mi nga xam ni mooy nafsu rasul ci ayatul mubahala wax nañ ko fi ci sunu yi wees sunu borom dañuy bind ñi nekk ñaari leer boobu moom rekk am bindagul sax aadama jiite na la woo xam ne boo ko doon nattale tey day tolloog quatorze mille ans ci ay riwaaye boobu mooy ba mu bindee aadama def ñu ci ndiggal aadama moom leer googu mu nekk loo xam ne mooy busol mooy guidance mooy li nga xam ne mooy gindi lu yàlla mësu bind mu ne comme jamono bu nekk daa war a am ci nit ku mu nekk ndax nit mooy li ñu tuddee al alamul musaxar wala monde en miniature lépp mbindee yàlla yi suñu borom da jaaj tomp tuut boole wante ko def ko mu di nit moo tax mu mënee fu ne mu ne falam yazal yanqulna min sulbin ila sulbi abdul mutalib ñu ngi toxal ñu bëgg bàyyikoo ci góor ba damay ci gérawaris da nga ko gis góor bu set wecc bu musula su jóotal xiram jigéen ju set wecc ju mas def lu bon ñuy toxalu ba yegg ci ndiggal Abdul Mutalib te dinañ ñëw ci way jur yi nee na fa xarajtu fi abdillah wa xaraja aliyun fi abi talib man ma génn ci abdallah moomu nga xam bi wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi ismi rabbi tool bu baax la cay génnee day baax waaye walladi xabusa laa yaxruju ila nakis génn ci Abdullah lay moom dinañ ci ñëw bàyyi lu nekk wax nañ ko ci bàyyi bi nañ ci bàng safara ah ah ko cee wax sa tey ko sa bàyyi nekk safara yaa moom di moom bàyyi ma nga àjjana na ko wax na ko nag dinañ ci ñëw incha allah bu dëpp dogal ak borom bi wa xaraja aliyun fi abi talib ne yemuloon ci nekk nit julli yemut ci nekk wëliyu waaye dafa nekkoon sax ku xam ni ci awsiya ñi yàlla bàyyee woon yéen ba mu joxoon yonent yàlla Ibrahima ci la bokkoon ci la bokkoon waaye lu nekk wax nañ ko ñoom seen bàyyi ñoo doon xeex yonent bi ca Badar ñoo ko xeex ci Hunayn sax de ñoo ko xeex sax ba mu fi jógee koo lu nekk ñu wax ko mbaa ñun rek fi nekk ñu ne waaw rek fi nekk ñu ne waaw nga xam nga lum la mbir mi kat ay yonent ki ay téere ki ay yoon yi loolu dara amu ci nguur la rek ñu lay ko yore woon ñun jot nañ seen yaay ya nga xam ne ñoo doon lekk dagg resu Hamza wa di ko lekk bëgg rek morom ndax lu nekk ñu wax ko Abdullahi lu nekk ñu wax ko Abu Talib lu nekk ñu wax ko Amina waaye bu leen jaralee ñu wax ci lu nekk ñun ñu ngi ànd ak ñoom danañu jaral ñu ne dem ñu futti waaw ñu takk suñuy ndigg luñ mën ci wax su ma jamaa nuuraana fi lxasani wal xuseyn suñ ñaari leer ci asan ak jaaree ci sayyidina amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salaamu alayhi ak Fatimatu Zahra mi nga xam ne yonent bi moo wax ne Fatima bi nga abdi minni man agdabaha faqad agdabani yéen kii daal mooy sama euh, genn wàll ku ko merloo merloo ko ku ko bégloo bégloo ko ku ma bégloo bëggal bégloo yàlla te ku ma merloo merloo yàlla ñoom ñaar ñu de muy Asan ak Useyn ñoom de nuuraani min nuuri rabbi at mu nekk dañ koy faral di fàttali kuñ fi ne yaay zone rëy ni te duwut juróo Asan ak dañ lay nax dañ lay nax rek wala dañ la bëgg wutal rek morom waaw Asan ak Useynu foofu ma nuuraani min nuuri rabbil alamin kon leer na te ko bind sax bu doon ne ndax a chiatu ali muhammad muy taalibe yi def njabootu yonent bi ñoo ko wax nga ne waaw mu yem yem ñoom ñoom rek la waaye boo demee ci kifaayatu taalib lil xaafis al kanji ñoon nga ko fay fekkee mu bind ko ci deux cent soixante takritul xawaas bu sëbt ibnu zaw ibnu euh, al juuzi ñoon nga ko fay fekkee sarhu naxjul balaaxa ci deuxième tomba riyaadul madhara bu tabar yi ñoon ko fay fekkee boo demee ci jawahirul maani ci bu cheikh ahmed tidiane sharif ridwanullahi taala noonu nga ko fay fekkee boo demee ci irshadatul rabbaniya lil futuhatil ilahiya bu abil abbas cheikhuna ahmed tidiane noonu nga ko fay fekkee boo demee ci nuurul absar fi manaqibi ali nabiyil muxtaar noonu nga ko fay fekkee noonu nga ko fekkee itam ci sunanu ahmed ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon kay leer day leer na mu tax ba leer googu nga xam ni parce que nit ki dafa am ci biiram lu ñuy tuddee an nafsu ashahwaniya wala an nabatiya mooy li lii nax lii nit ki nekk yaram wi di nay dafa am lu xam ne mooy tax nit ki di dund dafa am loo xam ne itam moo tax nit ki di xam di xàmmee loolu nga xam ne moom la nit ki di xam di xàmmee nag la fa muy xool mu man koy branché mu man di xam di xàmmee di yëg di deferoo ko defaraat boppam di déglu yu baax ya di ko topp di déglu safaan ya wala di ko xam te di ko te di ko moytu leer googu ñuy xool ñun ñëpp ñun nit te lu dul nit tam ci lay xool pour xam ne foofu la war a jaar bay bu ko yàlla ne ko itiyaa taw an aw karaan ñu ne ko nun koy xaalata ateenaa taa in loolu mooy leeru sama sang yi muhammadin sallallahu loolu lépp tax boobu leer du jar mukk foo xam ni seetlu mënu ko yàlla du sotti ci ndab lu tilim sotti ci ndab lu tilim waaye nag am ay buur lañu woon yoo xam ne lu leen neex ñi def lu leen neex ñi def ko defee nag ñu bëgg nag pour légaliser maanaam pour lewal pour daganal seen caaxaan seen fo seen ak kàccoor ak seen mbon doon def ñoom ñu ni xaaral ñu créer lu xam ne wax ci ci ba waaw te niñ ci ñëw barab yoo xam ne ñu ngi wax kuñ ko waxoon sa bàyyi nga xeex ba dee kuñ ko waxoon sa sëriñ nga reyante nga kon sañ a wax yonent bi lu ne jell man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi boo ci amee kàttan dindi ko lu bon ku gis fa in lam yastati fa bi lisaani boo ko mënut nga wéyje ko fa in lam yastati fa bi qalbi boo ko mënut nga lànk ne doo ci ànd ak ñoom beddeeku lan dem taxaw fële ndax loolu nit dina ko mën kana ay lu nekk wax na ko njabootu bi yonent bi njabootam ko wër te kat moom moo doon wax ci wax yoo xam ne boo demee ci sooyu di ci manasikul xunafa wax na ko ci ak yeneen i téere fagru razi mu ngi ko bind ci asrarul tanzil ci tafsiru wa taqallubaka fi sajidin yaani nuqila nuruhu min sajidin ila sajidin nee na leeram gi di daan toxalu bàyyi ko ci tënk ku jébbalu tuub te nangu ko tënk boppam jox suñu borom subhaanahu wa taala leeram gi mas la génne ci kenn ku mel noonu mas la jaar dugg itam ci keneen ku mel noonu lu mu wax mu ni lam azal xam mooy wax de muhammadin sallallahu alayhi wa ali lam azal unqal min aslaabi tahirin ila arxaami tahirat nee na mos may jógee di jógee ci ndigg yu set wécc di jëm ci biir yuy set wécc loolu koy leer na koy leer na ña way jur yonent muhammadin sallallahu alayhi ci diina yonent yàlla ibrahima ci la ñu nekkoon comme ni ci arab yu bare itam nekk yoon kon loolu koy wax dëgg yàlla leer na boo demee sangi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ci beneen xadis boo xam ne Bayhaqi yu indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa ñu jëlee ko ci Anas mu ne sangu-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali nee na fu ñaari kuréel taxawee yàlla ca ba la ma boole te maa gën ci kuréel boobu loolu fay leer na nee na continuer de nee man ñi ma jur samay ñaari way jur wa uxrijtu min bayni abawayni yoo xam ne dañoo set wicc masu ñooy laal dara lam yusibni shay'un min hari jaahili afaru jaahili yooyu yëpp a woon nee na masuma cay laal masuma koy jege ñoom itam jegewuñ ko ci sëy bu set wecc ci laa génnee wa xarajtu min nikaaxi walam axruj min sikaaxi la dun aadama na man lal masu cay dugg te si ci mii di di ak sama yaay di amina nee na loolu moom ci laa mas a jaar koy leer na koy leer na waaye bàyyi yonent baa nga safar yaayam a nga safar ma di xamal loolu man na yàlla jéggal ñi ko gëm te fekk ne dañoo seetlu dindi ñi ci des ay ñi ko tey ba dugal gën ak te ñu ñeneen ci topp pour bëgg yàq ñoom moom seen affaire la moo tax sang bi pour mu dindi mboolem luy ay yaakaar ju baaxut ci loolu wala ay équivoque mu ne fa ana xayrukum nafsan wa aban maa leen gën ndey maa leen gën bàyyi maa leen gën ndey maa leen gën bàyyi da koy leer waaye topp rek rajo yi sax léegi télévision yi yonent bi bàyyi ma nga safara te xam nga malheureusement mel na muslim moo xamante ni mu ngi judd ci ñaari téeméeri at ak ñeent gannaaw gàddaay ga téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak ñeent gannaaw gàddaay ga dëkk fële ci Nisaabuur ci Iran te Fars jamono boobu moo bind loolu waaye gis ngeen ñi ma leen ci tudd ñëpp yoo xam ne ñëpp nee na ñu bàyyi yonent bi yaayam ñi nga àjjana ñi bàyyi ko ñun ñëpp doon ñu toog dem toog ci mu mujj moo kan la maanaam musulmi rek taxaw fële ay wax ay waxam ñi bàyyi ñu ci waxoon yëpp toog ci musulmi nga ma nga safar ene leen ene ñu yàlla jëkk daal la lim rek ko noonu duñ ko tudd fokk ñu wax nag loolu ma wax léegi am na juróom-ñeenti xadis yoo xam ne boo demee ci zakairul aqba li mu xib bi jéem fay tabar yi dana ci fekk yu mel noonu ba dafay ñu nekk fa rek ay busa yu yu moom lekk xam na ne jamono bi ñu nekk siiw na ci jamono ndax ñu ngi ci fani burd bi busa yu yu moomu nag boo demee moom lam ci wax dafa leer ba leer yëgal fi dama iril kaw ni tuxtaaru lakal ummahaatu wal abaaw jamono yi yëpp bàyyi ba gën yaay ji gën moom lañ lay sànnal sa leer googu fu muy jaar bàyyi ba gën fa la sa leer gi di jaar ba mba muy ak ci loolu moo wóor waaye yow ku wax leneen sa wax yi bopp la rek sant yàlla ba nga xam ne ñu bare nag ñun xam nañ ne la ñuy wax noonu ay léeb la demee ci al alamu rabbaani alaaji malik si ridwanullahi taala alayhi day wax naan fa ma zala manqulan min aslaabin tuxrin ila tayibaati ruxi nihmal salawatullahi wa salaamuhu ala rasulina wa ala ahli baytihi tayyibina tahirin bu ko defee mu leer nañ nee na moom mosuñ di dañ di toxal leeram googu muy jógee ci ay ndigg yu jëm ci biir set wécc waaye kii a baax cosaan waay kii baax kes ko waay fu mu sosoo kii baax jaaro waay waay leen bàyyi fële rek leen bàyyi fële loolu itam mooy dëgg lu ne wax nañ ko lu ne wax nañ ko bëgg yàq rek boo demee ni ñu wax ci ay wéy juróom noonu la ñu wax itam ci ñi nga xam ne ñoo ko wér Abu Taalib Abdul Mutalib Faatimatu bintu Asad lu ne wax nañ ko ci ay mbokk kooku ñuy wax bi yonent bi keneen ñoom ñoo am yonent bu boo mel noonu waaye ñun suñu bos Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ambina salawatullahi wa salaamu du kooku ñuy wax ci way biram ñëpp a baaxoon la ko wër ñëpp a man li ma li ma jaaxal mooy ñi wax wax buum bi dañoo bare benn waaye rek taxaw fële wax naa ko wax ay waxam rek mu fàtte waxi gars yi yëpp topp ko boo demee ci euh, euh, suyóot yi day wax ni ñaari wuyu yu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi ñaari wuyu juróom kaana ala diini ibrahim boo def te rawdatul waaxisin noonu la ko fa waxee noonu la ko fa waxee dina yonent Yàlla Ibrahima nga xam ne hanifan musliman wa ma kaana min al mushrikiina foofu la ñu bokkoon loolu la Suyuti yi wax boo demee itam moom sant bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi rawatullah dina boobu day wax ne nee na sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci lammiñu jibril ne xaramtu naara ala sulbin anzalak wa ala batnin wala wax wa batnin xamalak wa hajirin kafalak fa ama sulbu fa abdullah wal batnu amina wal hijru abu talib wa fatimatu bintu asad koy leer na leer na nee na moom Suyuuti imam docteur waa yi si lu muy ci xadis boobu mu ne suñu borom moo wax ci làmmiñu jibril ne ko yee jàkk ne sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali ne ko man de araamal naa safara ci ndigg li nga xam ne moo la jur biir bi nga xam ne moo la ëmb penk ni nga xam ne moo la yar mu ne biir ba mooy ndigg la mooy abdullah biir ba mooy amina di sama jur wu jigéen abdullah di sama jur wu góor ki nga xam ne pergama mooy Abu Talib ak Fatimatu bintu Asad mi nga xam ne mooy yaayu amirul muminin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw sax ñu bëgg a gënale waxi muslim ci waxi suyuuti wala ci waxi bayhaaqi wala ci waxi keneen ak keneen ñoom ñooy kan waaw ñun bu ñu nekku doon sax ci diinay Ibrahim te loolu comme ni ko waxee léegi noonu la suyo kii noonu la ko noonu la ko waxee ak ñu bare bare ci ñi nga xam ne ñoo doon arab yi waaye ñoom yàlla daa yónni woon am yeneen bi ci na wa ma kunna mu'azzibina hatta nursila rasula wala hatta nab'atha rasula yàlla kay balaa muy sanctionné day yónni ku ñëw ni jël di wax leen nangam def leen nangam topp leen nangam bu leen def nangam ñi lànk waaye defu ko te mu wax ci alquran ne wa am ku naa ma ak jibi ñu dugal ay nit yoo xam ne ak yàlla ba ka rasulam ban sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali balaa ñu yegg si ci personnalité dañuy wax ne li ko wóróori lépp seet wala baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi ismi rabbi waaye walladi xabusa amul sikki ne laa yaxruju ilaa nakida Quran di ñu jox nag ay parabole la ca nekk ci njëriñ ak i njàngal demee ci ulamaul axlaax nga xam ne ñooy jàng axlaax lañ ci bind kenn xamut nu mu toll ay léeg-léeg nag ñu xamut ñu jàpp ay léeb la te la nekk kenn xamul nu toll mu ne tool bu baax yow ba ngay bay rek nga xam mooy suuf si waaye ndaka ak a tool bëri tool bi ngay bay lii bañ a sax xëy na dugg ci loola waaye ci alamul malakoot la nekk alamul mulk alamul mulk nag fa muy sokki mooy alamul malakoot ak suflaa ba ak oliyaa ba bu jëbee boo dem ci alamul jabarut te kenn ku nekk nag am na gaa yu fa taxaw temps yooyu léeg ba ñun buñ ko xamut bu ñu waxee benn ba rek lañ ca xama suut ñu yaakaar ne ay léeb la fekk ni ñin ñoo sorewut bala tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illaa nakidan te moom sax misaal ba daa tool bu baax ñu ruuj ko defar ko ba mu baax ñu dekk kii ko de bay ko ji def ci lépp luñ ci war a def lañ cay yaakaar mooy bu ndox am li ciy génnee dina baax ay tool bu ñu kenn toppatoo ay xeer ak ay lu nekk mu nga jël wala gàncax gu xam ne dañ koo e, ji ci ab sën màgg ba mën nay gaaw waaye bu foccee rek wala bu génnee rek da nga ne dara nekk tayyibuuna li tayyibaat wa tayyibaatu li tayyibiin ko defee loolu itam jërë ba xel bon yonent bi sallallahu alayhi wa ali ci hadis boobu wanee na fane suñu borom moo wax ne baayam yaayam ak ko yar yi Abu Taalib ak e, Fatimatu bint Asad ñoom ñëpp nga ajjana xaramtu naar araamal nañ ñoom safara bon ñu nga ajjana ñaar yooyu rek am di nga lu luñ ko luñ ko bañee luñ leen bañee daal man jaaxal na ma man duna bii jaru ko ñoom ña doon bañ ak a xeex faatu nañu te képp koo xam ne jaar nga fa ñu jaaroon lépp lu ñu am ci mbugal ak ci bàkkaar ñoom ña ko sosoon danañ ci am man sam na sunnatan xasanatan ku sos lu baax lépp lu ci juddoo nga am ca waaye wa man sanna sunnatan sayyi'atan moom itam rek ku def lu ku sos lu bon lépp lu ci juddoo ba yow ma xiyam nga am ca Abdul Mutalib noonu lañ ko tooñee moom itam bi waaye moom benn wax rek dafa doyoon ci moom ba Abraha bëggoon a ne day màbb ci kaaba bi muy seet ay jëréemam ba yegg si ci ñoom ni kii di mooy kilifa ak màkk bi ñi nag kaaba lañ bëgg màgg ba bis loo ci man nga def ko fekkee man nga ñu koy tere mu xool leen ni leen ah kaaba gi ñu ne ah mu ne ina lil bayti rabban soo ko yax lii kon koy doy na kaaba gi am na borom moo la moo koy aar waaye bu ma ni këtt ni jot na ba yàlla yónni leen ay picc kenn ku nekk ñu bindu ci tur ci xeer wu ñu jox picc mu ñëw sànni ko ci sa mu bay ko ci suuf ba ci ba ca ba ci suuf xam ne ñi ne la ba lil bay ci loolu def loolu xam ne kooku moom gëmoon na suñu borom subhanahu wa taala wéetal na ko itam bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi di nekk tuut tànk mas problème mas nay am ndox amul tiis am booba mu ngi nekk liir mu daldi di jël ku yóbbu ci ca kaaba ba ni ko kii martaba bi mu am ak daraja ji mu am ak li nga def ci moom mbóot yi maa ngi ci maa ngi la ci ñaanee nga wàccee ci ñoom taw nga wàccee taw kala taw ba taw ba mu lóor damay ci siratul xalab yéen nan ko fay fekkee waaw sooy bu sin ibnu juyesan nag du ma koo xaale mu mi nga xam ne bi ñu ñàkkee seen nguur te jotaat ca waa Quraysh def délégation dem di leen ndokkel mu daal di ber Abdul Mutalib ni ko yu nint bu mu jëf jamono ci yow mii lay jóge ko mu gëm ko tax mu sonnoon ci loolu balaa mu fiy jóge seet doomam yi kan moo ciy mën a taxaw taxawee ba mu wat jaar ci Abu Talib da ko daan toxal comme ni muus bi toxalee ay doomam xam ngeen muus doomam fu mu fanaan boo liggéey mu toxal noonu la Abu Talib daan def pour bañ rek yahud yi jaar ci kaw ñu ne kooku gëmul moom Abu Talib moo tax jëlee nañ ci mufti ash-Shafi'i Ahmad Dahlan mu bind ci Aslul Matalib mu ne jëlee gu ci borom xam-xam bare bare bare borom xam-xam ahlu sunna ñu ne ñu bind lu bare ci saxal ne moom Abu Talib moom ku gëmoon suñu borom subhanahu wa taala koy leer na li ñu war xam rek nit ñëpp mooy yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali li ko waroon Fatimatu bintu Asad lu ko tuddagum bu sax bi di jar tudd ndax nit ñëpp xam nañ ko mooy ki nga xam ne mooy yaayu amirul muminin Ali ibn Abi Talib nekkoon moom Fatimatu bintu Asad xam nañ ne yonent bi ci jamono ñaar ñu mës a wala ñaar ñu ñu ñu mës a takkante kenn ko tuub tuddee ka ca def tuub seen diggante da koy tàqale waaye Abdul euh, Abu Talib ak Fatimatu bintu Asad seen diggante noonu la continué waaye moom sax doy na ca yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali bi Fatimatu bintu Asad faatoo dafa ba ñu defar ba pare dafa daal di ñëw ba ci bàmmeel ba mu daal dafa tëdd moom yonent bi tëdd ci biir ba ba mu génnee jël mantoom daal di ko teg ci kaw wala ji boobu mu laxas ko ba tax tool ñu bari dañu wax naan bu ñu gasee ab bàmmeel ba pare ñu bind ci Fatimatu bintu Asad borom duñ ko mbugal loolu ñu ko bind bare nañu ci Abu Talib waaye lu xam ne ñun ñëpp dañ koy fàttali fàttale ko ndax wax nañ ko ci gàmmo yi ba ñun ñëpp ñu mokkal ko mooy tukki ma jëm Sham te ñu tase woon ak labbe ba rahib ba mu ne leen mu woolee ñu ñëw mu ne leen kenn desut mu ne ko déeréet moom Abu Talib nga xam ne woy juróom yi di Abdul Mutalib moo ko ko dénkoon ñu ne ko kenn desut mu ci mu insiste ne leen no xoolaat leen ñu ne ko jirim ak Abu Talib ba moo des ca bagage ba mu ne wool leen ma ko ñu woo mu ñëw ba mu ñëwee niir waa ngi ko di ko di ko di ko keral mu déeyug moom ne ko defal ndànk ki mooy ki nga xam ne mooy yónnente bu mu jëg jamono moytul boo moytul jëfu yëwa yëwa ji danañ jaar ci kaw mu gëm ko moom Abu ñii ni ci fukki at bak ñaara ji la ñii ni ci fukki at ak juróom juróom ba ñii ni ci ñaar fukki at ak juróom ba wala boog ay yoon la waaye lu ci mën a am Abu Talib ba mu gëm ak bi yonent bi sallallahu alayhi wa ñii ko yónni am na lu mu néew néew fukki at ak juróom loolu ko lu nekk nag waaw bu nekk daj na ko ci sacrifice bu nekk daj na ko ci màgget ñu dugal ko ci Abu Abi Taalib embargo fi lu mat ñetti at yoo xam ne kenn du jaayanteeg ñoom kenn du defanteeg ñoom dara loolu yëpp mu nangu ko waaye demal ci rek moom Abu Taalib ay ashar Abu dafa am diwaanu Abu boo demee ci Ibnu Abil Hadid bu Mu'tazili bari na lu mu ci loo xam ne yëpp day wane ni moom daal mooy moom mooy nekk gëm wala boobu gannaaw Abdul Mutalib moo ci topp moo topp moo tax ba mu faatoo moom ak Xadijatul Kubra sang bi Muhammadin sallallahu alayhi wa tiddee at ma waxu bis ba de wala xam nga ñun ñun fii mooy trois jours de deuil ñetti ati dëj ñetti fan yi dëj bu baree ba bare semaine lay doon waaye moom at mu yëpp la dëkk la décrété def ko mu nekk atum dëj wala tahzan alayhim wala taku fii dayqin mimma yamkurun pourtant yeneen bi da koo tere yàlla da tere mu tiis wala muy am tiis wala naxar ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yi ñu ne Abu Talib yo wax rek xabaar yi bare na ci xam naa dinañu ci dellu si waaye dañuy wax rek bi nga xam ne abbas moo ko wax abbas bi ba ñu jot ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali dafa benn bis da ko wax ne ko te boo demee ci kanzul umal noonu ko fay fekkee boo demee ci jaamiu saxiir bu suyuti noonu ko fay fekkee ak yeneen yeneen dafa wax ne ko waaw yaa rasulallah maa tarjuu li abi taalib loo yaakaaral abu taalib yonent bi ne ko kullal xayr bi ak yiw arjuhu min rabbi lépp ak yiw rek yaakaaral naa ko abu taalib ci suñu borom subhanahu wa ci tabaxaatu kubra noonu ko fay fekkee moom itam taariku dimas moom itam noonu la ko indee boo demee itam sang-sang yi sallallahu alayhi wa day wax naan ida kaana yowmul qiyaamati bi yowmal qiyaam jotee shafaatu li abi danaa ramm samay baay wa ab ummi ak sama yaay wa ammi ak sama baay tax ji di abu taalib wa axin lii fil jaahiliyati ak sama mbokk moo xam ne ñoo bokkoon booba islam ñëwul boo demee ci faqaa'idul uqba wa ba baabu fadlu xarabati rasul buñ ko fay fekkee siiratul xalabi indi na ko euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw ñun ñëpp nag wax li ñuy wax muy benn wax bi am muslim taxaw fële wax ay waxam nga wér ñi ñëpp topp muslim te ñu ci bare moo ñoo ko mag muslim gisul ku gis ku gis yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali waaye ma ne kanaa bu ñaar yow yu wuute amee ba jëf gën a baax kay wax dëgg yàlla loola ko mën a yaakaar ak yonent bi la ko waaye tànn li gën a yiis nangu ko la des ñu ay kilifa wax ko nga bàyyi leen ko ñun ñu bàyyi yeneen ay léeb la loolu nag war loolu nag mooy léeb nag mbokk mooy léeb boo demee ci aaya bi nga xam ne léegi léeg ci Abu sax danañ ko ci nag léeg-léeg di ko layee maa kaana linnabii walladiina amanu an yastaghfiru mu lil mushrikiina ñu ne aaya boobu nekk ci suratu tawba aaya cent treize ci suratu tawba booba la ñuy kii ñu ne yonent bi daf doon bëgg bu jébbalul Abu Taalib yàlla wax ko ñeeg nanga mën a wax seen i wax yoo xamante kenn xamul waxi lan la kooral aaya boobu kooral suratu tawba am na ñu ne mooy avant dernière moom mujj bi euh, moom mujj moom maanaam benn aaya benn benn saar moo ko mujj wàcc suratul maida am ñu ne déedéet ak suratul nasr moom ci juróom ñetteelu at ba ci la wàcc moom suratul tawba boobu abou talib faatoo màkka seen diggante ñoom ñaar fukki at ak nangam mat na ko wala jege na ko aaya aaya ba da wàcc ci suratu tawba ñu jël ko da ko layee ne abou talib di jubi waaw abou talib gannaaw ñu wax ne bon daawul julli kër boobu julli wàcce guddi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mbokk yi Fatimatu bintu Asad loolu lañ ko wax mu yaayam wax nañ ko léegi wax nañ ko léegi ne yonent bi sallallahu alayhi wa ali moo wàcc ci xabam ba lu ko wër lépp baax lañu ñu sell lañu ñu nga xamante ne dañuy wéetal suñu borom subhanahu wa taala waaye maal asaf ñi nar a yàq ak ñi nga xam ne ñaare ñoom euh, léegi sax xëy na si la leen cay dugal waaye ñàkkaa seetlu def na leen ba duñu déglu noonu la te pourtant li ñu taqalee loolu noonu la ñu taqalee yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ay wax yoo xam ne boo ko seetluwaatee da nga xam ne yu niroowul ak ci nga xamante ne mooy ku baax sax waxuma la ki nga xam ne mooy sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali incha allah bu dëpp ak dogal ak ci dellu ci fan yi nga xam ne ci la ñuy fàttaleku guddi sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali fii ci rajo Mousdayri FM 93 point 2 di kàddu njabootu Yonent bi ci complexe imam ali ci Zac Mbao Dakar ak ci Zahra FM 93 point 8 ci Kolda ak li ko wër ci machine bi soxna Xadijatu Diouf ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu